di seede ne yonent yàlla muhammad mooy jaamam ba mu yónni woon ngiree mu xamal ñu naka la ñuy jaamoo suñu boroom subhanahu wa taala ñi ngi yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy bi ila yawmi din ak mbokk jullit suñu boroom yàlla day mi ngi wax lenn ci ay jaamam ñoo xamee ni nii dañoo dëdd wane gannaaw aw yoonam suñu boroom mu ne waaw xanaa ñu mel nii day waxuñu leen la nga xam ne moo wàccoon ca téerey muusa wàcc ci téerey ibrahim wàcc it ca la nga xam ne nii moom mooy alquranul karim te mooy benn bis mi ngi ñëw di allaxira bis boo xam ne doomu aadama bi dafa am lenn lu ko fay jëriñ lu dul loo xam ne da koo jëfoon ci bi muy dund ci àdduna bi amul kenn ku koy jëriñ amul lenn lu koy jëriñ gannaaw ba it la nga xam ne mooy ñaawteef yam defoon amul kenn ku koy ku gàddul abadan kenn du ko ko gàddul la nga xam ne mooy mbir yépp day dellu ci kanamu borom bi borom ba maandu boobee mu daal di koy fay fay boo xam ni mat na sëkk méngoo na ak lam doon def bu doon lu baax la lu baax la bu doon lu bon la lu bon la te yéen doomu adama xam leen ne ñu ngi dund tey ci kaw suuf téeméeri at ci gannaaw quatre vingt dix nekkuñu fi woon téeméeri at ci kanam quatre vingt dix pour cent duñu fi nekk suñu borom moo ñu jox xalaa'ifa fil ard jox ñu kuutaay gannaaw ba fi ñeneen wuutoo loolee nag indi nañu fi may ñu ku nekk lam la may ci loo war a dund ci kaw suuf loolee ngir nattu la ana kan ci ñun mooy rafetal jëf bokk borom boobu mooy ki nga xam na moo peeg ji fi jaam dara du ko rëcc ndax da koo xamoon avant muy am suñu borom subhanahu wa taala nee na lépp luy xew bind na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla day bind na benn téere bu ñu tudd laxwul mahfuz luy nar am ba ila yumi din juróom fukki junni at avant muy bind asamaan ak suuf dañuy gis tey ay architecte yoo xam ne dañuy def plan benn immeuble immeuble boo xam ne tabax bi rek dina jël dix ans waaye nekk architecte bi dessiné woon fam jaarale woon courant ndox ak gaz ak ascenseur ak lépp su liggéey ba pare boo xoolee liggéeyu architecte ba day dëppoo loolu nag mbokk mën na am des erreurs waaye suñu borom yàlla moom du juum du juum di jaawale lépp xam na ko ñi daje ci jumaa ji yëpp bindoon na ko ci téeréem ba cinquante mille ans avant muy bind asamaan ak suuf gannaaw ba nag muy dem waaye nag du ñu àtte ci xam-xamam jalla waala daf ñuy àtte ci loo xam ne jëf nañ ko looloo tax ba boole nañu ak ay malaaka malaaka yooyu yi nga xam ni ñoom ñooy ñëw ngiree seede ëllëg yowmal qiyaama jaam bi defoon lu baax ba méritoo yàlla teral ko ak jaam bi jéngoon ba méritoo yàlla mbugal ko ndax malaaka yooyu suñu borom dañoo boole rek ku nekk ak malaaka bu koy topp bu baa muy dee déedéet suñu borom yàlla subhanahu wa taala jëf yooyu nga xam ne dañ koy jëf da koo séddale jëf yi ah suba ak jëfi ngoon amul benn doomu aadama lu dul ba fajar jotee yàlla yónnee ko ñaari malaaka mu koy surveiller di ko enregistré ci lépp lu wax lépp lu mu jëf ba tàkkusaan am yeneen ñaari malaaka wàcc relevé leen ñu nekk di ko surveiller di ko enregistré ba fajar jotaat loolee tous les jours lay doon su ko defee malaaka yooyu bu ñu demee daan gaaral suñu borom li waa ji def ci suba gi ñee bu ñëwee gaaral suñu borom li waa ji def ci ngoon gi gannaaw bi it mu am beneen gaaral boo xam ne par semaine lay doon mooy chaque lundi malaaka yi daan gaaral suñu boroom sa jaam bi day lii lay def diggante alxames ba tey bu alxames ñu gaaral ko lam defoon altine ba tey suñu boroom jéggal ña ko ca neex lu dul bokkaalekat ya ak ña nga xam ne dañoo noonu woon mu ne nañu bàyyi ba baa ñuy pare mbokku téere baa ngoog bés bu ne nga bind ñaari page yoo xam ne mi ngi lay xaar yowm alqiyaama heure boo deeyee malaaka yi tëj sa téere ñu denc ko fan koy denc mi ngi lay xaar yowm alqiyaama soo ñëwee suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne malaaka yi ñu génne leen sa téere nar ngaa jëm aljanna ñu jox la ko joxin bi rafet sa loxo ndeyjoor nga ubbi xool li nga doon jëf kontaan lool wan ko say mbokk yal na yàlla boole ñu ca boo jaaree jaarul fa neex yàlla soo ko ubbee loo ci yuuxu loo mënti ci da nga ko def te du la jëriñ dara loolu nag moo tax ba mbokk bu ñu nax suñu bopp doomu aadama balaa nga ittewoo lum mu mën a doon di ittewoo lii xew ci réew mi di ittewoo lii xew ci eh, quartier yi ak a baax lool waaye jëkkal ittewoo lii xew ci sa bopp lan mooy sa programme yow lan mooy sa diggante ak sa boroom loolu moo tax ba doomu aadama war góor góorgóorlu ci def lu baax lu baax loole xam ngeen ko julli ya koor ya ak lu mën a doon nañuy def lu baax di yéene def lu baax amul kenn kuy yéene def lu baax te dëgg ci moom lu dul yàlla bindal ko lu baax loole amul kenn kuy yéene def lu bon te dëgg ci moom lu dul yàlla bindal ko lu bon loole loole moo taxoon yonent bi daan ñu ñaax ne yow jullit bul ñee lu dul koo xam ne gis nga ko mu am xam-xam di ca di ko jëfee di ko jàngale ak koo xam ne mi ngi alal di ca def lu baax <coughs> guddi di ca def lu baax bëccëg lu tax mooy yi ñee googu nga ko ñee bëggoon a mel ne ñoom yàlla subhanahu wa taala dala koy bindal ngan la waaye sax leen ci def lu baax sax leen ci wootee ci lu baax képp koo xam ne woo nga ko ci lu baax te ña ca jiitu mooy sa njaboot ak koo mën a dajeel ci kaw suuf lu baax loolu mu koy def mu koy gise ba ila yawmi diin tuyaa ba ñu ko yàlla bindal ñu bindal lu tol noonu moytu leen di tasaare lu bon képp koo xam ne yaa tax ba lu bon mu koy def ba ila yawmi diin mboolem kum ko jàngal <clears throat> loolee dafay doon loo xam ne dafay dellusiwaat ci yow mbokk suñu boroom mooy boroom yërmaande bëgg jaamam yi texe looloo tax ba lépp lu baax rek dana ko bindal ab jaam bokk na ci loolee dangay ngay gis ne yooyu mi doon def lu baax yonent bi alayhi salaam nee ne bis boo feebaree ba mën a too ko daañ la ko bindal nañ la ko daan bindale bis boo tukkee ba sa jot mayu la ko daañ la ko bindal nañ la ko daan bindale heure boo jógee ngant taxaw daañ la ko bindal nañ la ko daan bindale loolu taxoon ba mu jógee gazwatu Tabuk bi nga xam ni jamono yi yëpp ci lañu ñu toll ci suñu tafsir mu ne sahaaba yi moo ne de am na ñu ne Madina amul benn xur bu ngeen wàcc benn tund bu ngeen yéeg benn cooro bu leen dal lu dul tuyaaba ju leen ci yàlla bindal yàlla bindal na leen tuyaaba ju toll noonu sahaaba yi ne ko ah te ñoom ñu ngi Madina mu ne wallahi ñu ngi Madina lan moo tee ñu ñëw mooy ngànt moo tee ñu ñëw mbokk lii mooy yërmande yàlla ci ay jaamam bëgg jaam di def lu baax bëgg jaam di yéene lu baax loolee nag heure boo xamee ne nii am na ki nga xamee ne ni mooy ab jullit moom dafay xam ne atte bi du àdduna atte bi àllaaxira la suñu borom yàlla jàll wa ala mu ne ngal la waay bu jàpp mukk ne suñu borom yàlla dana sàggane li tooñkat yi di def mu ngi leen di xaare bis boo xam ne mi ngi ñëw loolu moo tax yow mi nga xam ne dangaa nekk ci kaw suuf lu la neex nekkal milliardaire nga président de la république nga général d'armée nga loo mën a doon lu la neex defal suñu borom mu ne i'malu ma shi'tum lu leen neex def leen waaye bis mi ngi ñëw boo xam ne mbokk président da ko teg fële général nga teg ko fële taxaw ci kanamu borom bi lan ngay gis malaaka yu la wër looy gis sa jëf looy gis safara bi nekk sa kanam amul euh, garde corps amul avocat amul xarit amul sëriñ yàq sa borom ak i malaakaam yàq sa jëf ak safara bi lay xaar loolee mbokk ku nekk ci ñun war a doon bàyyi xel responsabilité boobu tey masalan fii ñu toll ci suñu réew ñu ngi ñaan borom bi jalla wa ala yàlla na wàll yàlla wàcc jàmm suñu réew wala fi dañ naan ku ndëbi ku ndëbin rey sa maam soo gisee lu ñuul daw xoolal pays yu bëri yu ñu wër kañ la am problème mooy biñ demee ba tollu ci élection loolu moo tax ba ñi ngi ñaan parti au pouvoir di ñaan opposition bi nga la way nañuy bàyyi xel képp ci ñoom koo xam ne yaa ngi jóg di wax e waay li ngay wax wax ko ci yàlla tax xamal ne fii nga toll nii lu gàtt la bis dana mësa ñëw sa kanamu borom kenn ko baax ci suñu mag réew mi mas woote ndaje bu rëy ci Dakar fii wax fa bay jooy lam tëje jataay ba yéen ñëpp ngeen war ko bàyyi xel te moo di ne ne bépp loi booy tenir bépp loi booy voté lépp looy woote awaay bala ngaa xalaat intérêt bi nga ci am wala sax intérêt bi ci réew mi di am xalaatal keroog bi ngay taxaw sa mu boroom mu laaj la waa yow keroog bi ngay signé bi ngay génne décret tel kérok bi ngay signé décret tel kérok bi ngay voter décret tel kérok bi ngay proposer décret tel lo xamné dafa nara jëm ci samay jaam lu taxon nga def question bobu ku ne ci ñen war ko wajal tontu ko ci kanamu borom bi fu mu mëna doon mbokk alakhira ñu ñew su poste ministériel amul présidentiel amul la fay am moy lan aljana safara lan mo la fay yobbu ndax campagne électorale ndax ay diplôme ndax wax du dul jeex dede suñu borom yàlla subhanahu wa taala muné heure bo xamé ni ni alaxira taxaw na borom bi dana indi ben balance faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi ayshatin radiya ko xamné balance am dis na ci jëf lu baax ma nga ci dund gu texe ci moy aljanna ko xamne say balance woyof ay say bàkkaar ëpp ya nga jëm sawara balance bobé suñu borom néna فمن يعمل مثقال ذره كيف كو خامن ديفنا لا غنا توتي تي تيابا دا نا غيس كونسيكانس با فاي ولا نكو غيس بودي لو باخلا بودي لو بون ني دا نكو غيس لولي مبك كو ني سي نين ورتا باي خيل مو ام نيار اكي بو خامن داي ام يوم القيامه اكي بو مك سا ديغنتك سا بوروم تي ليم لا سانتون ني ديفال لي باي لي mu am beneen atte sa diggante ak say morom te la nga xamee ne nii jalgati nga woon ko ci la nga xam ne mooy sidaq loolu la ñu yeneen bi alayhi salaam doon tiitloo ay yéen jullit ñi ndax xam ngeen ki perte ki fayit al muflis ndax xam ngeen ko sahaaba yi ko ah ñun de liñ ci xamoon mooy commerçant bu amoon alal dem ba mujj mu am catastrophe ci alalam amatul dara mu ne déedéet lii perte dëgg-dëgg lii fayit dëgg-dëgg mooy koo xam ne fexe na ba julli na ay julleem koor na ay kooram aj na makka génne na zakkaat def na digganteem ak boroomam amma digganteem ak moroomam yoonam nekku ci woon lekk na alali kii war na kii yàq na deru kii ila axiri bu ko defee jaami yàlla yooyu wër ko yowmal qiyaama ku nekk laaj ak xam ba ay tuyaaba yi mu yoroon jeex takk suñu boroom jël bakkaar yi jaam yooyee sëf ko ko ñu jël ko yóbbu ko sawara mbokk lii dañuy xam ne bokk na ñi gën a war a tiit lii mooy responsable yi nga xam ne dañoo am affaire akum réew am na ab stincaam boo xam ne këram rek la lijjanti am na koo xam ne problème quartier la yow am maa yow boo ñëwee di nar a wax loo xam ne day engagé am réew na doon da nekk au pouvoir wala nga nekk à l'opposition xamal ne jalgati ba nga jalgati mboolem waa réew mi bu ñu wax Sénégal am nañ 18 millions de de d' habitants képp koo xam ne indi na fi ab loi boo xam ne lor na waa réew mi 18 millions yooyu yëpp da nga leen jox seen àq yawmal qiyaama képp koo xam ne nii tooñ na ak tooñ na nga tooñ lu ñu bari bari bari da nga leen jox la nga xam ne mooy seen àq yawmal qiyaama loolu moo tax ba ku nekk ci ñun war a moytu la Yonent bi alayhi salaam doon wax ne cay waay nguur nit ñi day ñu ngi koy xëccoo. waaye moo nekk nàmpal gu neex nekk feral gu bon feral gu naqari tànk yaa ngi nàmp neex na waaye bis mu ne cëpp sa kanamu boroom da nga xam ni boo xamoon dëgg-dëgg da nga waroon a yendoo daw fanaane daw ñu lay dàq naan la kaay yooy nekk président nga naan déedéet déedéet déedéet ba baa ngay dee loolu mbokk bàyyi leen ko xel adduna mi dafa gàtt li ngeen ci nar a am du dara la ëpp ña nga xamee ni nii dañuy xëccoo nguur soo xoolee liñ def ci kaw suuf dootuñu ko fi defaat loolu kon góor góorgóorlul xam ne la la waru gar mooy fexeel def loo xam ne nii da nga ciy jëriñ jëriñaati ci ay ki nga xam ne fexe na ba indi aw doxalin woo xam ne bi mu ko tëralee réew mi yépp a ci jëriñoo kooku tuyaabam kenn xamul nu mu toll loolu nga la way jóg leen jëf ci loolu bépp ndaw boo xam ne nii yaa ngi jëm ci politique yaa ngi jëm ci syndicat yaa ngi jëm ci lu mën a doon ngal la waay sa jubluwaay na nekk la yonent bi alayhi salaam waxoon xayru naasi anfa'uhum linnaas ki gën ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi bañ a jiital intérêt personnel comme ni nga xam ne noonu lañ koy gis suñu jamonoy tey te mooy lépp looy def nga def ko fekk na yàlla subhanahu wa taala mooy ka la ko sant mbokk julit mooy ki nga xamee ni ni fu mën a toll day feeñal la nga xamee nii moom mooy ak mbaax waaye rawatina nag di nëbb la nga xam ne mooy ak mbaax góor góorlu leen ci def lu baax rawatina góor góorlu ci lépp loo xamee ne nii daf leen di jural aa ngërëmal borom bi subhanahu wa taala am na yu ca yomb lool lu mel ni fu ngeen toll day leen saxoo zikrullah di jéggulu yàlla di sant yàlla jalla wa ala waaye góor góorgóorlu leen seen kemtalal kattan moytu bañ a bokk ci ñi nga xamee ne ni dañuy feeñal ci kanamu nit ñi lu baax waaye bu ñu wéetee nekk ab safaan déedéet suñu borom yàlla contraire bi la bëgg te mooy da ngay gis ne julli dëgg mooy ci nga xam ne bëccëg ñoo ngi koy gis ci lu baax bu guddi jotee ba ñëpp tëdd ba mu ba mu wéet mu rocceeku nank taxaw ci kanamu boroomam di rukkoo ko sujud di ñaan yàlla jalla waala suñu borom mu ne ñu mel noonu la ma leen dencal ci pay kenn mënu koo xam malaaka xamu ko kenn xamu ko yàlla rek moo ko xam amma contraire ba moom la yonente bi alayhi salaam doon wax dana am ni ñëw sama xeet indi ba yu toll na ay montagne suñu borom wax malaaka yi ñu def ko poussière sahaaba yi na ko lu waral loolu mu ne mooy ci bëccëg day dañ doon feeñal jaamu yàlla waaye bu ñu wéetee ak la yàlla araamal daal di koy xotti jalgati xotti ko kon la nga xamoon moom lañu doon feeñal yépp mooy ngir doomu aadama yi xam ne ñii ay nitu diine lañu fonk leen ca loolee loolu moo tax ba gàllawaay mbokk nañu delluwaat bala ñoo nekk di xeex di xool li xew ci réew mi di xeex di xew ci lum mën a doon nañ jéem a xool jëkk luy xew ci suñu bopp xam leen ne suñu borom yàlla dink nañu juróom ñaari ndénkaane yoo xam ne nii ku nekk ci ñun war na ca bàyyi xel ëllëgi ki si biir dañ ko ko laaj ndénkaane yooyee ba ca gën a màgg mooy sa xol bi xol mooy la nga xam ne moo jiite cëri doomu aadama xol bi bu baaxee cër yi daañ baax bu xol bi yi dañuy bon yow julit lan nga war a gëm ci sa xol bi fexeel ba wéetal ci yàlla xamal ne yàlla rek kay yàlla keneen ku dul yàlla ab jaam la amul sañul manul du àdduna du àllaaxira yàlla rek nga war a delloo say mbir yàlla rek nga war a yaakaar loolee mu dëggu ci yow nga dëggu jaamu sa diggante ak sa borom gannaaw bi yëpp suñu borom nee na xam leen ne seen dégg gii seen nopp yi lépp lu ngeen ciy dégg du ñaara ngooga seen bët lépp lu ngeen ciy gis du ñette ngooga la nga xame ne mooy seen loxo yi lépp lu ngeen ciy jële ko joxe ñeente ngooga la nga xam ne mooy seen tànk yi lépp loo xam ne yéen nga cay dox juróoma ngooga ak la nga xam ne mooy seen pay yi lazina hum li furujihim xaafizun moytu lépp luy njaaloo juróom ñaari cër yi ku nekk ci ñun war naa bàyyi xel nan la koy sàmme ba jubal ko fi neex boromam subhanahu wa taala fexe ba mu bañ a delgati loo xam ne luuxul borom ba lii nag boo paree leneen looy def nga doog a jëm ci keneen suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ata'muruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di digal nit ñi lu baax ba pare daal di fàtte seen bopp loole mbokk day am yow jigéeni jullit nga ne jullit nga ñu gis na nga sol ca góor sa yaram yépp mi ngi ci bitti nga naan da xeex ay projet de loi ndax yow am nga amoo koo ma sa dajeeg yow mu ne la soxna si suturaal sa awra xam ne lii ngay def day yaa ngi jalgati bu dee ne ki ngay xeex jalgati na loi réew mi yow yaa ngi jalgati su loi borom képp koo xam ne nii ab politique wala lu mu mën a doon tax na ba nga jalgati waxtu julli képp koo xam ne politique tax na ba nga noonoog sa mbokku jullit lënkaloog sa mbokkum chrétien sa sa sa sa dëkkandoo chrétien ngir oh, affaire politique xamal ne ña ngay xeex de peut-être ñu ngi jalgati waaye it yaa ngi jalgati lu gën a garaaw la ñoo ñee di jalgati su ko defee kon loolu mbokk nañu bàyyi wax xel ku nekk ci ñun xool lan mooy responsabilité am digganteem ak boppam digganteem ak njabootam avant muy xalaat digganteem ak réew mi waaye ña nga xam ne it seen responsabilité yegg na ca la nga xamee ni nii moom mooy ah jubal lu baax ci réew mi responsabilité boobu yàlla la leen koy laal allaaxira suñu boroom ku nekk dana laaj ña mënoon a dindi ak seen loxo dindi wuñu yàlla dana leen àtte seen àtte bopp ña mënoon a wax ca waxuñu yàlla dana leen àtte seen àtte bopp ña mënoon a naqarlu te naqarlu wuñu yàlla dana leen di àtte seen àtte bopp ci suñu boroom du juum du jaawale loolee kon bokk ñu góorgóorlu bàyyi ci war xel bu baax xam ne suñu boroom yàlla day muy boroom njéggal muy boroom yërmaande jaamu yàlla yi bu doon tene ñépp àndoon nañu yëg na yàllaay suñu boroom wallahi opposant parti au pouvoir kum mën a doon ñun ñëpp ñu raxasaat ñuy xol jéem a ànd ci yàlla tax jéem a déggal suñu boroom yàlla dana wàcc jàmm suñu réew wàcc yërmaane suñu réew wàcc déggu suñu réew amma leneen lu dul li kenn ko soit lu ñu mën a def ca ay effort mooy dañuy suul pax sulli pax bu gën a garaaw boobu téeméeri yoon lii rek mbokk mooy la nga xam ne mooy yoon bi su ko defee kon li nga xam ne nii opposition bi ñu ngi koy woo nee na nañu woo jumaa yëpp nañu ñaan tey ci liy xew ci réew mi suñu ñaan daal ak yéen mooy suñu ñaan ak pouvoir ngal la waaye ñun ñëpp nañ delloo waat fexe déglu borom asamaan ak suuf bépp loi bu ñuy tëral bépp loi bu ñu jóg di xeex nañu xool lan moo ci position alquran ak sunna gannaaw ba fan la yàlla jaar bu dee lu ñu war a xeex la nan la yàlla santaane ñu xeexe ko noonu yow mi nga xam ne yéen yaa ca nekk te tëraloon ko ngal la waaye suñu boroom yàlla ku tuub yàlla baal la ku yàlla baal la at tawaab bo xamene ni fir'auna mo moo gënoon bon bépp président bu ñuy tuddu tay ci kaw suuf teewul suñu borom ba mu ca yónni Moussa daf na ko demal nga wax ko wax joo xamne wax ju noy la ngiré mu mëna tuub delu ci yàlla Musa ñëw na ko ay fir'auna hal ila an tazakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha fir'auna nakh do kay ma ma ma wan la yoon nga tuub dellu ci sa borom yàlla sellal la jéggal la loolu it kon mooy képp koo xam ne nii xam nañ ne suñu kàddu gi moom fa mu yegg soriwul waaye ñu yàlla may kattan ñu mën a toog ak ay président mën a toog ak les grands opposants nga la way nañ leen delloo ci yàlla jël waala nañ leen xamal ne adduna bi léegi mu jeex nañ leen xameel ne daje bu mag ba rassemblement bu mag ba mooy keroog ba ñuy daje suñu kar suñu kanamu borom nga xam ne bu tasee ñaar rek a nga leen jiital jëm àjjana ñeeni nga leen jiital jëm sawara yal na yàlla wërsëgal ñu dellu ci ay njàngaleem yal nañu yàlla wërsëgal ñu déggal ko yal na yàlla wàcce jàmm ci suñu réew yal na yàlla tànnal ñu ngën jaa baax ci ay njiit njiit yoo xam ne nii dañuy teete ca la nga xam ne ngërëmal yàlla la yal nañu yàlla tànnal njiit ñu am yërmaande ci xeet bi duñu xool lu dul seen ngërëmal borom ak ngërëmal xeet mi yal nañu yàlla fanqal dàqal ñu képp koo xam ne ko fi bàyyi yal nañu